أعوذ بالله بسم الله إن ولي الله وما توفيقي إلا بالله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ذوي الرضوان والجاه السلام عليكم ورحمة الله mbokki jullit بنيو ginnaaw bu ñu sante yàlla di julli ci yonenteem ba seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di nuyu te di leen ziyaara di leen ñaanal jàmm di sàkku ñaan ci yeen di leen bàllu àq di leen bal xaq te ñaan yàlla sun borom subhaanahu wa mu boole nu jëggal suñuy àq yi dox suñu digganteek moom ak suñuy moroomi jàmm di am mbégte dellu siwaat ak yéen ci laa yu ñu baaxoo ànd ak yéen incha allahu taala te nag ñu andil leen loo xam ne ku yàlla dogal nga am aajo ju taxaw te diis mooy yitte joo xam ne daal euh, diis na lool nga bëgg yàlla sun boroom mi nga xam ne <clears throat> mooy boroom lépp te lim yor lépp dayewu ko lenn te jaamam rekk a tax te moom mi nga xam ni moo bind jaam yi mu wax ci alxuraan ñaan leen ma ma may leen kon ku am yitte yu taxawte diis incha allah boo defee ñaan bi ñu lay jox yàlla mën na la ko fajal ci mbaaxam muy lan <clears throat> dangay dugg ci néeg yow képp walla nga nekk ci barab bo xamne yo yow ya fa nek lu melni ay xeeti sal wala nek wala sal <coughs> fam dal yo kess ya fay nek japp ba euh su la neexee man nga julli jullik nafila ñaari rakka su la itam man nga ko baña def japp ba sel jublu penku nek ci barab bo xamne yo kess ya fa nek sa nek wala ci sal daa di def salaatu ala nabi mille fois mooy junne yoon julli ci yonante bi sallallahu alayhi junne yoon soo noppee nga ñaan sa aajo insha allahu taala yàlla mën na koo faj ci mbaaxam ci yërmandeem ci barke bi yonante bi alayhi salaatu wa salaam ñu ngi yem foofu di leen jox dég daje ba ëllëg di wax ne képp ku bëgg a seetlu leerlu say mbir boo wootee ci numéro boobu di affiché Serigne Mame Mor Mbacke dana la defal listixaar incha allah à distance kuy tuwo bayre njaay bi walla jaaro bi tam mën na woote ci numéro yooyu incha allah livraision à domicile gratuite la ba ci anam yi ñu toll livraison yi ñu ngi dox ci région yi ci biir réew mi ak bitim réew incha allah kon ñu ngi leen di jox dig daje ba ëllëg ci beneen vidéo di ñaan ngeen abonné ci suñu yeneen chaîne yi bu fekkee xool nga ci accueil bi chaîne bi ngeen seetaane vidéo bi les grands secrets boo xoolee ci accueil bi di nga gis yeneen chaîne yi nga xam ne yu am solo lañ fay dugal ñu ngi leen di ñaan ngeen abonné foofu tamit tey j'aime vidéo yi incha allah yal nañu yàlla defal tawféex defal ñu sutura doole ñu ndimbal te barke liggéey bi ba lépp lu ñu fi joxe képp ku ko def yàlla fajal sa aajo ndax yàlla mën na ko te luñ fiy joxe lépp ñaan yàlla la du leen bokkaale. du loo xam ne itam xel da koy dégg di ci am xel yaar ci lii lu ñu war a def la wala lu ñu warta def ndax lépp rek day delluwaat ci yàlla sun borom tabaraka wa taala kon loolu yaakaar naa ne lu lu am solo la jërë ngeen jëf